naa ko maa ngi leen ci sant bu baax te xam ne mbas mi bu ñëpp defoon na yéen incha allah danañ ko mën a arrêté ci lu gaaw ndax euh, jumtukaay yi nga xam ne moom lañ ñu borom xam-xam yi digal yi masque yi ci la bokk ak euh, yu mel ni yu muy àndat yëpp te yéen a ngi ci te comme yéen a koy jox clients yi di ko jox chauffeur di ko jox coxeur yi di ko jox apprenti yi yéen yéen a ngi ci xeex bi ah bu ko ñëpp defoon nag nii ngeen koy defee incha allah léegi tey ñu am solution waaw. ñu dama leen a euh, teg ñu gëmut yàlla ndax euh, kenn ku ne xam na na mbas mi am na kenn ku ne gis na na njëkkewut fii te réew yi ëpp doole ci la njëkke te lim ci yàq ñaanu yàlla mu yegg si ci ñun. kon kenn ku nekk bala moo yegg si ñun waroon ngaa xam jumtuka jumtukaay yii nga war a jël euh, képp koo xam ne man maa ngi lay digal mooy na nga jël masque yi na ngay jël sel bi na ngay def distance bi wax na nañ koy def incha allah buñ ko buñ ko defee dañ ci génn ku ko daaw def na ko def ñi ko ñi nga xam ne euh, ñi ngi koy def nañ ko yokk te am na ñoo xam ne kenn warul leen a seetaan dañ cee war di wax ndax bu ñu nitit nitewuñ bu ñu fay ñu bañ a takk masque bañ a def li nga xam ne moom la borom xam-xam yi santaane bu ñu nekkee nit nitewuñ parce que suñ njëriñ la defaluñ ko état defaluñ ko kenn suñ bopp lañ koy defal. dafa tolloog nag ñi nga xam ne ñooy responsable yi ñoom ñoo ci gën a sonn ndax ñoom ñoo yore njaboot gi waaye ñun ku ci def sa bopp nga ko defal. kon ñëpp ci war a góorgóorlu waaw man nag nii ngeen def ñi nga xam ne duñ ko def nag ñuuñu nag ñi nga xam ne ñoo yore doole eh, réew mi ñoom ñoo war a jëflanteeg ñoom parce que waruñ leen a bàyyi nag rek ci kum neex def kum naqari nga bàyyi waaw ñuuñu moom comme déggatuñ wax nag lu ci ay daan dañ leen ko war di teg waaw man man lu looy sama gis-gis waaw dañ leen a war di teg ay daan comme wax nañ leen te xam nañ ne am nañ mais dégguñ dañ leen war a teg ay daan waaw